Mbëkk Seen Njaay ma Yaasin daawul eey mi jimbul Maam Seex Ibrahima Faalooy coow li coow li la fu ma jar way fu ma jar kañ la mbëggeel gi ma am ci yow ëpp na ba Fazer ndeysaan Cheikh Ibrahima ñu leen gënal Ahmadou borom jaam yi ñu leen gënal jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi siyaar lamp Babu Mouridina di euh, kaw siyaaree nag sama xarit bi moom nga xam ni boo ko xoolee dangay xam ni kii surtout Cheikh Ibrahima la muy Omaro Gueye mi nga xam ne wax dëgg yàlla ku yàgg ak man sama waay ji ndaanaan wi maa ngi lay siyaare bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay nuyu naa la bu baax a baax Mor sama waa ji Mor yàgg nañu man ak yow de loolu Mor Mor yaay fàtte ba ñu Njaga Njaay la ñuy wax xaw ma Njaga Njaay. yóbbu ñu Gàmbi. yóbbu ñu Gàmbi ndeysaan ak amoon fi du fi du réewoon nag ay ba pare ba pare présenté nu Adama Baro. waaw Umaru. yóbbu ñu ba ci moom. dama ni yóbbu ñu ba ci Adama Baro. booba booba taa Adama Adama Baro moo doon président bi. moo doon président toog la. ba loolu nga xam ne c'est difficile. kooku foog nga am euh, euh, euh, am melokaan bu baax ci réew mi. wala nit ñi fokk la boobu woon sax boobu. Gambie non non booba mi ngi toog doog a toog Gambie. pour nga ah, gis que c'était tout impossible. boobu boobu Gambie régléegul woon. booba Gambie régléegul woon Omar jiix jiixi jaax dem ni ma ñëw leen àndandoo ñun délégation bi ñëpp topp ko kenn du ma Omar. billaay wallaay nga présenté ñu ko ndeysaan yàlla nga gudd fan sama xarit bi nuyu naa la Mor. waaye maa la raw sama yaa ngi am jàmm. gëj nañ gisa lool waaw gëj nañ gisa lool sax. daf nay ab takk nga ci soxna wala. takk naa ci soxna ba am ci njaboot ñaari doom. maa ngi takk takk naa ci soxna ba am ci omoro sama taaw am ci mambu sa borom poroxaan ndeysaan xam nga loolu yàgg na koo bëgg de non kooku sama nit la koo bëgg de Omar sama lépp la xam nga koo bokkal maanaam plus de quatre yoo xam ne yéen a bokk benn lal bu ngeen di fanaan hmm? nga xamal ko lépp moo xamal la sa lépp kooku sama diggante moom samedi ak dimanche noppam yàlla mu ngi noonu nopp yi guddoon na nag ako ako nopp daa <laughs> ilaaha dama ma ne ko nga nuyoog ñoom ngañ ma déggeen dem ak seer njaayoo yi lamb faal sama forma yaasin daawul eey mi jimbul mam Seex Ibrahima Faalo yi coow li coow li yow la isa jeey Fatim penna la tukkaabe ngoone jeey ise jey fatim penda lattuga be goole jey e way dammel fa njoogu ndeysaan de calaw dammel samba yaaya faal e way ngañ ma degen dem ak njaay mu forma yaasin daawul mi ci mbul maam seex ibrahima faale waaw waaw ndeysaan mës ak njeboloom mm. bay wax na yàlla ko moom moo ko ne baam mooy ki la moom ngañ maa déggil démb saa yaar ñaayi ma far ma yaasin daawul ndeysaan mi ci mul maam seex maam seex ibrahima faale joole joole yow la est que xam ngeen musicalement baat bi ci boppam dafa am ay ay ay ay instruments yu ne ci baat bi billaahi am na ay affaire yu may ressentir day mel na vent mooy dem tellement que sa baat sëñ Bamba li tax ñu bëgg ko ci moom la ma ñëw ma ñëw Grégoire dafa am ñaari élément yu ma la yónnee xool ko sa WhatsApp nga ñu ko ci mayaale ci télé bi dañ koy soxla ngir jëmi sëñ Touba euh, moom bu koy gis yaram wi dina daw te dina ci kontaan muy euh, nataalu Cheikh Ibra ak nataalu Serigne Touba dama bëgg nga nu koy mayaale à nit ñi di ko seetaan loo wax nga ne xësaa sëñ Bamba li tax ñu bëgg ko ci moom la xësaa sëñ Bamba li tax ñu sopp ko ay waay ci moom la li tax ñu bëgg ko ba amuñu ci moom sago ay waay ci moom la ndax moo fi deflu kenn deful dëgg moo fi wax lu kenn moo fi dem fu kenn demuleey ba gaañi jàqeey sëñ Bamba moo ñu wallu xësaa sëñ Bamba li ñu bëgg ko ci moom la borom tukki bu sori bi ci sëri ca bu baawaan bi tukkeem bu sori bi waral màggal gi waral xalaf-xalaf gi ñu am ci baayu sëriñ Saaliwo ngañ ma déggel dem ba saa yaari ñaay ma far ma yaasin daawul maam seexoo wooy kenn maam seex Ibrahima Fall ndeysaan mu dey xibaar ak njëbbalam Cheikh bay wax na yàlla mi moom moo ko mooy ki moom ngañ ma déggen ñam ak teer ñaay ma farmayatil daawul mi ji muuley wooy kenn du maam Seex Ibrahima Fall ndeysaan waaye munu maa way Seex Ibrahima Fall góor dëgg xësaata du ma way ki njëkk a woote màggal gi ndeysaan ali ko guduroo ne Fallu lamp yi moo ko taal ndeysaan arme yi moo ko miire moo ma naar ya naan ko labayka ndeysaan ba ca Tuuba lamp faal ko tuddee est que xasaa laaj ma kan moo ko ko tuddee ku ko sëñ Fallu moo ko tuddee ndeysaan lamp yi moo ko taal armeel yi moo ko miire moo demaloon sëñ bu mag bi maa ka naar ya naan ko labayka yeye wooy kenn du maam Seex Ibrahima Fall. ma ci sëñ Saliou ma xool. man de dama ko bëgg ay sëriñ Saliou. xësa man de dama jooy bi ma déggee ne sëriñ Saliou dem na. ndeysaan. ma ne ñi naan sëriñ Saliou dem na. ñii xanaa danoo dof. wala danoo déggul la Ahmadul Xadim waxoon. Ahmadul Xadim nee na. lam tan muxaddamaatul mawti nee na man duma faatu te moom moo ne mooy sëriñ saaliw lil xaadatil wujudi wal masaaliw bi tey wal jës bi wa inni sëriñ saaliw waxam li yal masay wal amal asaalix alladi yu kaamilul amale wooy kenn du sangum sëriñ Béthio Thioune anta mali gana baal ma jigéen biiram ndeysaan farba samba sa neex sa pen mo jëre jonga may kaddu ngewel kooku may bëgg a way moo ma def ni ma mel sëriñ Béthio mambam bi caam jaamu sëriñ saaliw sëriñ Béthio mambam bi caam soppeb sëriñ saaliw sëriñ Béthio mambam bi caam moom la Serigne Saliou wax ne yaay man maa yow anta maali ganna paal ma jigéen biram farba samba sa neex sa penda moo jere jonga may kàddu ngewele wooy kenn seex méje cuuney daal di wax waaye waykatu waykatu waykatu musique yi waaye ñu de <laughs> lii kat moo ko mën di di waay plus de dix minutes taxawoo barke Serigne non waxuma de te doo nooyu <laughs> parce que li ma ci neex mooy mhm. euh, euh, euh, instrument yi yi ne ci vo ci ci voix voix sam bi mhm. Mhm. ngeen Ibrahima Fall. te ba tey nuyoo ko nuyu leen nuyu leen nuyu mbokk yi lay seetaan. waaw xasaa maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp. di wax ne nag kontaan naa tey ci dalal bi nga ma dalal ndax yow da ngay sama waay. man ak yow depuis Gambie ku ne xam na ne tey sama teewaay fii Omar Oumou Cheikh Béthio moo ko waral. waaye balaa loolu maa ngi wax jërëjëfati Serigne Saliou di ñaanal sëñ Béthio jaamu Serigne Saliou fa mu nekk yàlla nañu Serigne Saliou gën a sotti yërmandeem di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal Serigne Cheikh Saliou di ko ñaanal it sama buntu ci kër sëñ Béthio muy Serigne Saliou ndigal cuun alxalifa di ziar nag soppee moor mu Seex Béthio yi nga xam ne ñoo toog ñëpp di ma seetaan ndeysaan di biggéey ñëpp ndeysaan waaw di wax na daal ziar naa ñëpp képp koo xam ne yaa ngi toog di ma seetaan daal lenn daal xamal naa leen que mooy naanaan la mhm. ndaanaan la ku mën a way la ndeysaan ku am yar la te mhm. itam ku ñu war a mën a jàppale la ndeysaan Omar nag ku la yàgg bëgg la ndax mhm. yéen ñaar seen taxawaay wax dëgg yàlla ci moom laa la xamee waaye wax dëgg yàlla man tey tu m'as surpris yàgg naa xam sa yàgg waaye mais yàgg na mais léegi non dañoo gëj a gisee xam nga yëf fi ñu toll gën garaaw nag ah waaw xam nga xisaa adduna nag moo toll foo xam ne maanaam bu yàlla defee nga mën li ngay def mënuloo ko sa bopp suñu borom moo la ko mën loo dëgg la liggéeyal rek kase foo bëgg a àgg sa liggéey moo la fa yóbbu donte sax dinañ la jàppale mais même buñ la jee jàppale te mënoo li ngay def doo dem fenn mais da liggéey boo liggéeyee nag sa liggéey moo la bëgg a yóbbu moo la yóbbu fa nga bëgg a dem. am na sama benn maam bu ma mës a wax ni ma xëcaa ma ne ko waaw mu ne ma travaille jusqu'à ce que tes idoles deviennent tes concurrents. liggéeyal ba ñi nga mhm. bëgg yow. Mhm. jàpp ni ñooy say idole ñu mhm. nekk say concurrent déggoo li ma la wax kon liggéey rek moo am solo xam nga bu njëkk man ñi ma toppoon seen ginnaaw daanoon aw waaw ay moomee ñang ay Pape Gueye mi daal di bari na jaaji jang bu ma la naan aw sama xol day sedd ndeysaan tey ma dem ba li may sante bokk na ci maanaam ñoom sa ëppuñ may programme saa su nekk maa ngi samay programme ma dem ba ñoom ñu defante nawle man ak ñoom est-ce maanaam liggéey rek mën a mën nga waaw mu ngi noonu talaa kase nga <laughs> waaw léegi nag ñuy da nga ñuy leen di boolelaat noonu rek mhm. balaa ñuy tàggoo benn affaire bu ndaw rek mhm. ñu tàggoog téléspectateurs yi waaw léegi balaa maa tàggoo damay nuyu ñi nga xamante ne saa su nekk dañ may jàppale waaw ku ci mel ne gàddaloo mu Serigne Saliou moom Serigne Saliou moo ñu boole waaw maa ngi koy ziare di ko ñaanal sëriñ bi sàmm ko sàmm njabootam di nuyu soxnaam di nuyu nag sama yaay ju baax sa ñu koy wax soxna Ana Afia mu sëñ Fallou ndeysaan mu ngi toog nii di ñu seetaan ah soxna Ana maa ngi lay li may wayaat te moom laa koy may soxna Ana Afia ah macha allah wayal sëñ Fallou sëñ Balla ah. mu sëñ Fallou moom it taalibe sëñ Fallou la ndeysaan ak soxna mère Soda mi nga xamante ne day sama yaay ndeysaan lu rafet lu ma am lu ma sol su may dem programme waaw su ma dugalee estati lu ngeen ci lu ci nit commentaire lu rafet moom moo ma ko jox muy taalibe Baye Niass macha allah maa ngi koy ziare bu baax a baax a baax kon nag xam naa damay woy sëñ Fallou maa ngi nuyu tamit nag sama soxna waaw ah, macha allah <laughs> bu baax mu ngi toog di ma seetaan ah soxna si ñu ngi lay saare dinaa ñëw añ ci kooku sax ah waaw sekk la sant yooyu moom ay sekk la faramaaren la ah, ah, caaxaan kese waaw déedéet non du ay caaxaan xam nga am faramaaren yombul nag maa ngi koy ziare bu baax ah bàyyi yooyu di nuyu tamit nag sama léegi maa ngi ci yéen ci yéen yéen ay samay xarit samay nawle bàyyi naa ay mbalax yëpp ay caaxaan kese la sama njaboot waaw nuyu leen baax sama taaw bu góor boobu di Omar di nuyu Mambouso waaw di ziar ñëpp di bëgg di nuyu it sama yaay moom mu nga ba Kaolack xam nga man waa Saalum la di nuyu waa Kaolack yëpp ndax man Kaolack laa dëkk macha allah di ñaanal di ñaanal sama papa tënkal ñu ci sëñ Fallou ñu doog a tàggoo ayca sunu borom xaar ak di nuyu sama maam ndax fa laa ndax man sama maam laa dëkkal dëkk la di nuyu ñëpp man maa bëgg Falliloo sëñ Fallou ku ko bëgg raw nga man maa doy loo yee juróom na ko kenn soxna ana am nga sëriñ waaye ku jàq woo alaaji fàlliloo moom mu faj saa jooyee moo fi ni raay bi moo ko guddoonee lamp yi moo ko taal armeel yi moo ko miiree moo demaloon sëñ bu mag bi ma ka nare naan ko laa bay ka maam fàllu laay ba ca Tuuba lamp fàll lañ ko tuddee kan moo ko ko tuddee kan la sëñ fàllu moo ko ko tuddee laaj ma ba mu demee Makka lu ko naar yi doon wax labbayka maam Faalu laaye labbayka maam Faalu laaye macha allah yàlla wëral baat bi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax jërë ngeen jëfa ci ami chers téléspectateurs Satou Sarr comme niñ ko waxee moom bëgg na euh, euh, euh, ñu ngi kontaan ci laxasaay bi nga xamante également dañ ko jox ki ñu ko jox nag nekk ca Touba mhm. ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di Bamba ci mhm. mooy yii nii bu ngeen ko bëggee mais di Bamba ci mhm. <coughs> bu ko defee mu mën leen ko jaay ndax laxasaay itam dafa am solo 77 nga xamante moom moo di 76 Sadou gërëm nañu la ci tissu bi di leen ko wéyal incha allahu rabi ci 77 941 85 26 moom mooy jaay tissu yi 77 941 85 26 jërëjëf. man nag fi ma génn nii sama rakk ju baax ju ñuy wax Bamba Solo Bamba. Mam bu Solo. Mam bu Solo nekk ba Paris. d'accord moom a génn jésneer bu baax bi. macha allah rafet xam naa dinaa la booleeg moom. waaw incha allah Mam bu Soo defal lool. waaw sama rakk ji kontaan naa kontaan bu baax jërë ngeen jëf ami di gërëm di leen jox dig daje demee euh, euh, xam ne moom mu di 11 moom tam euh, dina fi ñëw àndandoog ñun jërë jëf et d'ici di ñaanal kenn lu jàmm jaa ngeen jëfati Alaaji Cheikhu Sall la woon jaajëf